ñu ngi leen di nuyu di leen fa yéen ñi nga xamante ni yéen ay suivre bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn actualité maanaam coronavirus dëgg la defoon nañ ci ab vidéo mais contexte yi bokkul parce que boobu dafa concerné woon sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi dund Chine. bi yoon nag jàngoro joojee di coronavirus dafa dugg biir Sénégal ab doomi France moo ko fi indi muy premier cas ci biir réew mi wala sax mën nañ ko tuddee troisième cas parce que bu ñu sukkandikoo ci chef de service des maladies infectieuses bu hôpital bu fan muy professeur Moussa Seydi am na ñaari cas yu ñu recevoir foofee hôpital fan te actuellement ñooñee ñi ngi am tan bu baax baax. loolu rek mérité na réflexion bu yaatu parce que naka la ñu mën a amee ñaari cas ci biir réew mi te defuñu benn communiqué pour xamal sénégalais yi parce que bu dul dara ñooñee amoon nañ ay yeneen contact ak ay doomi aadama te ñun ñëpp xam nañ ni jàngoro ji niñ koy wàllantee dafa yomb trop. donc am na ci doy waar ci mbir mi te yooyu yëpp danga ko waxtaan waxtaanee ci vidéo bi maanaam naka la suñu njiit yi sàgganee ba coronavirus dugg ci biir réew mi parce que ñuy suivre di analyser bu baax lii bettu leen. parce que defuñu benn dispositif bu jaar yoon pour xool ñiy dugg ak génn ci biir mi waaye itam am benn suivi boo xamante ni jaar na yoon. balaa ñuy sori itam bëgg nañ souligner benn mbir bu ndaw mooy ñi ne ci réseaux sociaux yi di wax naan coronavirus amul biir Sénégal ñoom ñoo ñee di jibal ay kàddu que ni gouvernement bi moo ko créé pour divertir askan wi. jàpp nañ ni ci cas yu ni mel il faut ñu ñu yu tuuti teg de côté ay discours politique moo xam foo mënti bokk ak képp koo xamante nii yaa ngi koy teel tànk parce que dañuy wax ci benn problème de santé publique tey cas bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci biir réew mi maanaam doomi France bi nga xamante ni jàngoro ji dal na ko ab institut boo xamante ni nii ay professionnels de la santé ñoo fa nekk ay sénégalais yoo xamante ni jàng nañ ay dizaine d'années am seen laboratoire seen yoon newu ci politique ñoom ceytu ak càmbar yenn virus yi mooy seen liggéey xam li ñu naan éthique ak déontologie professionnelle ñooñu ñoo seet waa ji ne dafa amee jangoro ji di coronavirus. yow jàngu médecine demo institut Pasteur pour laaj leen ba xam ki fi indi réellement dafa feebar amoo benn information bu leer yor sa ordinateur wala sa téléphone portable bind ci internet bi ne ministère bi waxul dëgg jàngoro ji amul Sénégal jàpp nañ ni nag erreur wala crime bi gën a mag mooy nga def ci bopp sénégalais yi que jàngoro ji amul ci biir réew mi maanaam bu leen fagaru. bu len jël seeni matukaay ba nag ñaanuñu ko yàlla jàngoro ji tasaaroo ci biir réew mi jàpp nañ ni instant bii nii li war képp ku ñuy may nopp di la bàyyi xel mooy nga xamal sénégalais yi jàngoro ji ni muy manifesté woo daan ci ñëw ci njeexitalu vidéo bi bu ko defee képp ku gis lu nduróog jàngoro ji di coronavirus kookee mën a dem ñu seet ko teel ko faj parce que il faut que dalal aussi xelu sénégalais yi ndax jàngoro bi di coronavirus buñ ko teeleen nemmeeku teel la saytu teel la jël en charge yow mun nga bañ a sa bakkan li ñu war mooy expliquer sénégalais yi naka la ñu mën a fagoroo ci jàngoro ji leeral leen ko te loolu lépp daan ci ñëw ci vidéo bi nii su ko defee suñu borom musul ñu ci jàngoro ji mais taxaw naan ji amul Sénégal ba nara lor say yi sénégalais loolee njuumte gënu ko rëy li ñu war a leeral kay mooy naka la suñu autorité yi sàgganee ba coronavirus bi dugg ci biir réew mi ñun Sénégal yan moyen la am pour aar bépp doomi aadama mais itam xool naka la ñuy fagoo yaakaar nañu loolu question bi. comme ni ñu ko waxee sànq premier cas coronavirus bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi beetul ñenn ñi en tout cas ñi nga xamante ni ñi ngi analyser dugg beeg bi ci biir réew bi di Sénégal rawatina zone yi nga xam ne dañ ci constaté cas coronavirus yu bari ñooñee cas bii nga xam ni dal na Sénégal beetu leen. parce que erreur bi ci njëkk mooy bàyyi doomi aadama yi di dem ak dikk comme ni mu leen neexee ci yenn dëkk yi nga xamante ni coronavirus bi dafa tasaaroo muy Chine Corée du Sud itali Japon ak France nit ñi di dem ak comme ni mu leen neexee. amul benn contrôle bi ci war amul benn suivi boo xamante ni jaar na yoon te pourtant kenn ci ay waajuru étudiants sénégalais nga xam ne ñu ngi nekk Chine alerté woon na autorités yi ci émission bii di diine ak jamono. ñi nga xamante ne ñu ngi nekk euh, Guangzhou ñu ngi ñu ngi ñibbisi am na Sénégal yu jugee foofu di ñibbisi. am na ay Sénégal yu jugee Chine di ñibbisi. même pas am ay chinois sax yu jugee chinois sax Guangzhou di ñëw fii. di ñëw waaw man actuellement nii. Mhm. Euh, li docteur wax nii c'est vraiment la parce que. Mhm. tey jii ba tey jii Euh, suñu suñu président. di mhm. ragal ay doomam dugg si fii. damay dégg dugg si fii ndax mhm. danger. Mhm. léegi moom muy bàyyi ay chinois yu jugee Guangzhou ak feebar nu mu mel actuellement di dugg si fii. ba pare keroog may dégg euh, directeur euh, de kii directeur de la santé nu mu tudd sax directeur Mamadou Mamadou Ndiaye oma di la prévention voilà mu ngoog. di wax ne actuellement. gars yi euh, y' a cent quatre vingt personnes yoo xamante ne dugg jóge nañ Chine dugg fii mhm. mais li mu expliqué man dafa dawlu sama xel lu mu expliqué parce que dafa ne maa euh, mhm. mu ne gars ku ñëw dañuy jël sa carte d'identité astafurlah sa passeport photocopie ko jël sa mhm. numéro téléphone ne la ñu bind ku sa yaram tàngee nga wooñu yow sax kii euh, mu tudd jox jël numéro carte d'identité bi da tàngee mais yow kooku ren mu bu tàngee doom bu koy may naa dee mën na ko wàll feebar bi parce que loolu man dafa ma tiital dèjà sama doom te wax na ma ko nee na ma papa mu naa ma la ma mooy moom moom njëkk wax sax dama euh, boobu nii Macky Sall mu ngi bañ ay doomam ñëw fii di ragal peut être ñu contaminé te ñun dara jotuñu feebaruñu mhm. dara jotuñu moom moom mën na ci dëkk boobu moo la wax loolu moo wax loolu mais moom actuellement nii parce que loolu jar na leeral mooy xale yi fa ñu nekk feebaruñu dara jotul leen d'accord mais dëgg mhm. wallahi lazim leen mu ne ma. actuellement am na ay chinois yu dugg man moom ma ko wax man ne ma vérifier leen am na ñu ñëw di dugg si bi mooy mooy mooy jël jël sa sa sa photocopie passeport jël sa quarantaine. man quarantaine boobu man man nga su ko dégg ah, man xaw ma. kàddu yi nii mi ngi ko yëkkati woon bésu alxamis 20 février caatu ñi seetaanoon émission bii nii premier cas au coronavirus bi ñu ko ci biir réew mi bettu leen yoon. parce que non seulement dëkk yi nga xamni coronavirus bi dafa feñ nit ñaa ngi fay juggé di ñëw Sénégal comme ni mu leen nexé mais aussi bu ñu yexé aéroport Blaise Diagne amul benn contrôle bu sérieux bo xamante ni ñu ngi koy amal pour xam ba xam ñoñé dugg nañ ci biir réew bi ak jangoro bi wala déet. comme ni ñu ko déggee ci intervention wu kenn ci waajur étudiant sénégalais yi nekk Chine nee nañ bu ñu yegsee maanaam ñuy tukki Chine ak yeneen réew yi nga xam ne dafa am jàngoro ji di korona coronavirus ñooñu bu ñu yegsee aéroport Blaise Diagne dañuy photocopier seen passeport jël seen numéro téléphone nee la ñibbil boo sentiree dara rek nga def ñu signe. léegi imaginer leen nit ki amee jàngoro ji diggante bi muy dem këram taxi bi mu dugg nit ñi muy jëflanteel. contact yi mu am ak waa famem wala ay dëkkandoom maanaam en moins de 24 mën na wàll jàngoro ji ay doomi aadama yu bari ndax lan sàggante suñu autorité beneen mbir mi mooy nax gi suñu autorité yi di nax maanaam di dalal suñu xel yi ne jël nañ seen matukaay ci mbir mi alors que demeewul noonu bi coronavirus bi commencé tasaaroo ci yeneen réew comme Italie France yeneen réew dañu ne mettre nañ en place benn xarala maanaam un système de surveillance boo xamante nii day détecter automatiquement température bépp passager boo xamante nii débarqué nga biir Sénégal léegi question bi ñuy laaj mooy français bi nga xamante dafa amee coronavirus te nekk Sénégal jamono ji bi muy dugg ci biir réew mi ana système bi nga xam ne mooy détecter température bépp passager kon ñoom dañu lajji foofu noonu ba tey ñun dara wóoruñu que am nañu jigéen bitim réew duggaaleeg jàngoro ji te kenn xamu ci dara ñuy jëflanteeg ak ay doomi aadama ba léegi

pour mën ko le temps que résultat yi un patient bobu nationalité française mais mi ngi au Sénégal depuis ñaari at ak ñaari domam ak soxnam dafa demoon dëkk France précisément fu wax Nîmes c'est benn station de ski bu nekk dans la région bu wax Auvergne-Rhône-Alpes nek na fa ci période du 13 ba le 25 février dellu ci Sénégal le 26 février. légui ñun question bi ñi laaj mooy depuis que domi France bobu noonu duggé biir Sénégal manam le 26 février est-ce que remonté nañ ci activité yi nga xamante nii jot na ko amal maanaam seet bépp doomi aadama boo xamante nii na contact ak ñom bërëb bi mu jot a fréquenté Dakar pour xam ndaxam jotu ko ñenen ñeneen laata muy dem hôpital ay laaj la yoo xamante ni ëlëm na suñu xel parce que ku waxal dëgg rek suñu autorité yi wóolootuñ leen wóolootuñ leen parce que ñoom ñoo waxoon ni teg nañ ab xarala aéroport buy ceytu képp kuy dugg ci biir réew mi système boobu noonu échoué wóolootuñ leen parce que ñoom duñu jox la bonne information maanaam duñu jox xabaar bi wér parce que ndekete am na yeneen ñaari cas yu amoon ci biir réew mi te kenn xamu ci dara xibaar bi ki ko xamle mooy Moussa Seydi di chef de service des maladies infectieuses ci hôpital bi di fan. Dire que les deux patients aussi que nous avons reçus se portent bien. Hein, nous, on ne s'inquiète pas par rapport à leur état de santé, mais comme l'a dit Amadou, la prise en charge, le challenge, c'est de prendre en charge correctement le malade et d'éviter la contamination intra-hospitalière. Ne l'oublions pas, cette maladie a tué beaucoup de personnes qui travaillent aussi dans le système de santé. nous avons une question est sympa, sampaat di ko laajaat jëmale suñu autorité mooy lan moo tax ñun nëbboon ñu ñaari kaawu coronavirus yooyu noonu ñaari ñen la exactement ay sénégalais lañ wala déet ba tey indiwuñ ci benn leeral alors que xamuñ ba xam ñooñee jot nañoo wàll ay nit te xamuñ ci dara kon ñoom pour l'instant dañoo lajji parce que non seulement dañoo sàggan ñaareel bi mooy duñu communiquer ak sénégalais yi. léegi nag li am ba des mooy xamal sénégalais jàngoro joojee di coronavirus pour ko ku ci nekk non seulement nga mën a teel a dem ci bërëbu fajukaay boo nemmeekoo yenn signes yi waaye itam jël say matukaay pour aar sa bopp. jot nañ ko souligner sànq li ëpp ci jàngoro ji di coronavirus di manifesté woo mooy put guy métti grippe bu jéggi dayo biir buy daw sëqët gu métti waaye itam am jafe-jafe pour noyyi. donc képp ku gis si ñu nu mel wala ku la jege ñaanuñu ko yàlla li gën mooy nga teel a dem ci bërëbu fajukaay ngir ñu defal la analyse teel a jël en parce que li nit ñu war a comprendre mooy buñ ko teelee nemmeeku jàngoro ji mën nga jotaat sa wér-gu-yaram. la plupart ñi muy rey mooy ñi nga xam ni teeluñu ko xam teeluñu leen jël en charge mais boo ko teelee nemmeeku dem ñu ceytu xool la teel a faj yow mun nga mucc beneen mbir bi mooy faggu maanaam yenn comportement yi nga xamante ne nii war nga ko sàlloo pour mucc ci jàngoro ji waaye itam mën a aar ñeneen bi ci njëkk mooy raxas say loxo ak saabu wala beneen produit saa yoo duggee sa biir kër wala nga yegg ci sa bërëbu liggéeyukaay booy sëqati itam wala ngay ñandu nga utiliser mouchoir boo ci paree sànni ko foo xamante nii ay tout tànk duñ ko mën a jël boo ko amul booy sëqat nga couvrir sa gémmiñ sa loxo pour bañ a lor keneen pour ñi nga xamante nii nag dañuy fréquenter fooy mbooloo nekk mën nañ utiliser masque pour non seulement aar bopp waaye itam musal ñeneen ñi donc jàngatu tay bi loolu woon xamal sénégalais yi sàggante gi suñu autorités yi sàggan ba jàngoro jii di coronavirus yu dugg si biir réew mi waaye itam joxe quelques recommandations pour que ku ci nekk jël say matukaay ba mën a mucc ci jàngoro ji nga xamante nii nuñ koy waalantee dafa yomb torop donc ñu ngi leen gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf